jërë ngeen jëf mbokk internet ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàcc waaye bu di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di na fi jàmm yàgg ñaana way daw luy borom yërëm te xaar leen te àjjana fi daw si ñu feebar tëdd si hôpital yi si kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp rawatina caabi féete fii ngeen gis ni nag fii moom yàgg nañ fee ñëw ndax miin nañ ko arène nationale waaye dañoo toog ak koo xam ne nag kenn la si ñun nee naa la Sénégal namoon na ko trop nag waaye rawatina axlu làmb ñoo gënoon namm kanaa buñ ne Bamba ziar na la waaw Idi maa ngi lay nuyu di la fay di la jaajëfal di la jox sa wàcc waay ginnaaw bu yàlla julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur di sant axlu làmb képp koo xamante ne yaa ngi si biir làmb la ñoo ngi lay sant di la nuyu di la jox sa wàcc waay di ñaan yàlla suñu borom ñi nga xamante ne nii ñoo tëdd si lalu hôpital yàlla fëgg seen bopp ñu tourné mën a delluwaat seen njaboot ñi nga xamante ne nii ñoom la caabi féete ginnaaw ñuy ñaan yàlla suñu boroom waaw natt boobu leen yàlla teg mu teg ko ba nu mën a tourné waat dellu seen njaboot waaw. bamba si làmb fu xam bamba xam ne ba ñaax dañu ko dekkal bamba Milano bamba la moo ko dugal si làmb ba tax mu investir ñëw bu ne nekk waaw xam nga tey làmb dafa nekk loo xamante ne dafa bokk su ñun. waaw ñun dañoo bëgg làmb làmb ju xew la ñuy ñëw. moo xam ñu xam mbër mi bëre moo xam ñu ñàkk koo xam dañoo bëgg làmb ay amateur lañ woon amateur lañ njëkkee woon képp ku may suivre la nekk si biir làmb la xam na ne Bamba Milano yàgg naa ñëw làmb tey nag ñuy dem di dem di dem ba suñu xel nekk si dagg licence nekk promoteur te nañ ko xalaatee woon noonu la ko yàlla suñu borom defee ñu siy dugg si bisimilah rahmaani rahim di si génnee si alhamdulilah rabbil alamin waaw di di tàllal promoteur yëpp loxo ñi nga xamante ne ni jiit su métier bi maa leen tàllal loxo di leen seen rakk ñëw na Bambi Milano ñu ko gën koo xam si Milano production waaw maa leen tàllal loxo nag di leen wax nañ jàppale seen rakk parce que métier bi moom xam nga yaatu na. waaw ñu si waaw ñi nga xamante ne ñooñu si jiitu daal ñoo ngi leen siy tàllal loxo xeebuñu kenn nag xeebuñu conseillé kenn xeebuñu xalaatu kenn waaw. Bamba la moo ko poussé dafa am mbër mu doon topp wala de Bamba dafa dëkkoon ak ay mbër ba tax Bamba gën a bëgg làmb ba tax tey mu dagg licence. waaw man tey jii man dëkkuma ak mbër quoi wax dëggu fa yàlla man booy xool man mbër yëpp presque samay xarit lan quoi ñu ma si àndal indi leen si làmb bëri na xam nga mu ñu doon suba fii la ñuy fekk. waaw. léegi nag fi ñu toll dafa mel ni Bamba. na porte. waaw na porte. ubbi parce que instant bii ne ba xool. taxawal nan combat yu am am solo nag combat yu am am solo lañ taxawal. diggante Ndiaga Thiam. caatu Pape Diop ba son doomu Pikine bi ñoo ko bool Kara Doole. mais nag làmb jooju noonu. Eh, cat da say am parce que Kara Doole. moom wax dëgg fa yàlla ban jógee Milan ba Dakar ñëw pour régulariser combat bi dañ ko woo min moom parewul pour bëre décembre ñun ko ñun dañoo am date samedi le 23 décembre ñëwal ñu régulariser combat bi le 23 décembre des na te jox na la avance bi depuis mois de juillet waaw léegi nag moom. dañ ko jox avance mois de juillet. depuis mois de juillet nag. est-ce que bi ngeen ko si décembre ngeen lay bëri. waaw bañ koy jox euh, avance bi euh, bañ koy jox avance bi dañ ni ko. jox na la avant saison deux mille vingt trois saison deux mille vingt quatre ngay bëree mais man moom avant may ñëw nee naa ko laa ji bëgguma mu génn décembre parce que tey jii loo loo xamante ne nii CNG xamoo loo fay fekk mbër doo ko jox jour ak weer mais man moom si soo ma coobee bopp avant may ñëw nee naa ko mois de décembre bëgguma làmb ji génn ko quoi man moom man ak moom wax nañ loolu quoi mais nag ba mu ñëwee ni ko kaa ñu réaliser combat bi minimum du mën a pare pour bëre décembre. waaw man ko nag comme que demee na noonu nee na rakam bu góor dafa feebar dañ ko opéré woon moo doon yëkkati moo doon moo doon yóbbu dañ koy nangul lool quoi duñ ko ko bañal mais comme que parewul pour bëre décembre te ñun ñu koy ñaan lépp lu ko joxoon la si nu mu gën a gaawee la nañu ko delloo léegi nag combat ñu mënee mujjee rek réaliser mooy combat dab daan vite fait waaw. Kara Dollé avance bi si moom la jaaroon moom nga waxaloon wala ménagère am nga waaw Kara Dollé avance bi jaarul su moom quoi avance bi si ménager la jaar Abdoulaye Ndiaye waaw avance bi su moom la jaar eh, jaarul su mbër mi waaw laat nag mu nekk Abdoulaye Ndiaye mu nekk nit ku baax nit ko dal waaw nit ku responsable nit koo xamante ne nii yàgg naa fekk làmb si tolof tolof mu retiré problème bi waaw ba ñu waxee moom na wax dëgg fa yàlla lam ñu wax dal na suñu xel quoi ñoo koy sant tamit ñoo koy gërëm waaw. léegi ne dafa am ku tawat. ku taxaw mu bëre si décembre bi léegi Ndiaga Thiam moom nu ngeen koy def. waaw Ndiaga Thiam ñu ngi koy utal adversaire Ndiaga Thiam ñu ngi koy utal adversaire Ndiaga bay xool ñoo ngi ñoo ngi waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy Mama Yaa presque déggoo nañ sax. Mama Yaa bu tënkee waaw dañoo xaaw a déggoowul si kase. mais am nañu yàqee ni làmb jooju moom dana taxaw bu yàggul dara. waaw Ndiaga caam ñoo ngi koy doxal diggante moom Mama Yaa bu tëngeej waaw léegi dañoo taxawal combat dab daan vite fait dañ koo réaliser le 23 décembre samedi le 23 décembre dab daan vite fait. dab daan bu jam ñaajo. bu jam ñaajo war a jàkkaaroo dib eh, vite fait fils de Ndiaye. bu joxaay doomu Serigne Ndiaye. doomu Serigne Ndiaye. foofu seetlu. waaw Bamba ku la décroché loolu. non xam nga ñun tamit dañoo ne si làmb te dañoo am ay conseil am ñu ñuy wër am staff bu dëgër boo xamante ne ñoo ñuy xalaatal waaw tey ji boo demee ba jaxaay jëli vite fait dem ba jam ñaajo jëli dab daan nga dem ba yëmbal jëli bàyyi njaga mu yëmbal dem ba Pikine jëli 10 mille problème nga ni déete waaye nga demaat ba parce jëli Karbala ba roog énergie boole ko ki nga xamante ne nii mooy booy Karam Thiam. Karam bu Caaray Karam bu Caaray fa jógee ñu jëlee alliance Balde borom Pikine waaw borom borom borom Pikine boole ko ki nga xamante ne mooy ndigal bu Grand Médine ñu ni déete waaye ñu dem ba jàmm gën jëli fa Dérangé dem ba yëmbal jëli fa ki nga xamante ne mooy Pape dem ba Mbëbës jëli fa Mbës 2 boole ko ki nga xamante ne nii mooy mooy Bada 2 waaw yemuñu foofu ñu dem ba géejawaay jëli fa saa jaxaay boole ko ki nga xamante ne mooy petit murloo bu benn baraak ñu ni fa la ñuy yem ñun ko waaye ñu demaat jëli ki nga xamante ne mooy caatu Grand Yoff caatu Grand Yoff boole ko ki nga xamante ne nii mooy maaloo bu gunaas sànq bay combat bi di taxaw sa kanam diggante fils de Rhône ak ki nga xamante ne nii moom mooy bàcc seeraas bu jaxaay bés bu jaxaay waaw mu nekk combat yoo xamante ni ñëpp a ngi koy xaar samedi le 23 décembre Bamba Milano sa combat la yëpp sa combat la oh, yëpp sa combat mais ki nga xamante ne mooy euh, Drange ak Pape Seras hmm. non mbër yooyu chaque jour la ñuy rayante ba de deux mbës deux combat yooyu nekk na combat yu doy waar yoo xamante ne ni samedi le 23 décembre fii si arène nationale bu ko kenn tardé. kon fi ñu toll nii Bamba ba ñu jox ko bi war a ne. moom moom le 23. le 23 kay maa moom yaa ngi nii kay bu la neexee moom mën naa ko mën naa ko sax génne woon leen. waaw papier yi ñoom du teew ñuy nataal de. waaw tungu ne du teew ñuy nataal ko te tubaab preuve la bëgg. la bëgg. kon waaw xam nga lii moom lii moom CNG la. <laughs> papier yaa ngi nii. waaw contrat diggante dab daan vite fait le 23 décembre moo ngi nii ku nekk jot nga sa basam Assisa moo yor vite fait jot na contrat am Père Max Mbargaan moo yor dab daan jot na contrat am waaw defe naa lépp leer na quoi. waaw ñoom ñoo moo lay bëreel spécial. waaw spécial bi nag euh, pour l'instant nii ñoo ngi xool waaw parce que il faut ñu waxtaan ak bi parce que man dama am staff lépp lu may def staff bi laa si waxtaanal. waaw man lépp lu may def la staff bi laa si waxtaanal parce que man du ma dem ak sama xelu bopp. parce que production yaakaar naa du benn nit ko moom. dëgg la ay nit bu ñu nekkee dañuy waxtaan ay nit bu nekkee dañuy waxtaan te man sama staff dama jël lépp jox leen man du ma tëb tëb génn wax te tàgguwuma staff bi. du ma jékki-jékki tamit def ay affaires yoo xamante ne staff bi yëgu ko. waaw looloo tax moom yàlla dimbali na ñu ba am na ñu ne suñu ginnaaw du ñu xelal duñu ñu du ñu conseil ñuy dem. le 23. le 23 le 23 décembre samedi lay tombeel. waaw samedi lay tombeel. est-ce que jour boobu mën nañoo xaar Bamba affiché si benn grand combat bokkul ak bii. non jour lépp mën naa nekk parce que booy xool tey jii suñu dix combats yi sax yàlla def na ni waaw man na waaw Ndiaga Thiam caatu Boston la ñuy utal adversaire waaw ñoo ngi si wax dëgg fa yàlla mu nekk mbër bu am ngor mbër bu jàmbaare mënoo jël combat ay weer def sa xaalis fu ne nga dugg fa ah ñu dem ba làmb ji des tuuti. nga ñu war a décraliser sa adversaire ni parewul pour bëre loolu dara gënu ko metti waaw Ndiaga Thiam wax dëgg fa yàlla ñoo ngi koy remercier bu baax nit ku baax la nit ku dal nit ku nit ku am yërmande caam Thiam caaru soon bër bu baax a noonu billaahi ba ma ko woowee wax ko loolu xoolal mënoon na faa nekk mais xoolal ànd ak dal ni ma yow yow borom baax nga quoi waaw te te li nga ma li ma ji dama la koy delloo kaasul waxul dara waaw moom Ndiaga caam waaw parce que mënoo jël sa combat ñëpp di ko xaar waa Pikine yëpp yëg combat bi tey ji rus naa génn sax ni leen combat bi yàqu na waaw kon kooku tamit làmb war na ko mën a bàyyi xel jàppale ko quoi parce que nit ku baax la waaw man mbër yëpp samay xarit lan waaw Kara Dollé amoon su yaakaar moo tax ma jël sama avance jox ko ni ko kaay bëreel ma mais comme que nag yàlla def na ni nii la ko yàlla tuddee nii la ko yàlla bëggee duñ xëccoog kenn waaw. le 23 la mën a xaar si Bamba Milano fii si arène. le 23 daal le 23 fii di ngeen fi gis lu garaaw le 23. Mbengue Loum. di ngeen ko gis fii si arène nationale. Eh, eh, eh, Momo Ngom non Mbengue Loum laa la wax. le 23. di ngeen ko gis fii si arène nationale bi. Momo Ngom. di ngeen ko gis fii. Hmm. wax sax baaxul yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm. mais Bamba sama xol gën naa sedd bi nga nee Mbayang ne Momo. ñoom ñoom ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar loolu loolu loolu fii du yomb ko gis nga combat combat bi fi amoon la huit ñoom ñaar fee lañ fa def da nga waar waaw. moom moo yeewoogul. moom moo yeewoogul saison bi tijjeegul bu bi tijjeegul <laughs> yeewoogul <laughs> ndax saison bi tijjeegul. billaay nga <laughs> idi gis nga le 23 décembre. Ah. non yàlla xamal lu may ñaan ah. Mhm. xamal lu may ñaan seede yàlla. Mhm. maa ñaan suñu borom. dëkk bi am jàmm ak salaam dëkk bi bu amee jàmm ak salaam ah fitna bañ a am ñu ne si jàmm ak salaam yàlla def si ndox bu sedd guy billaay di ngeen gis fi lu garaaw ñoo ngi ñaan yàlla nag mu yóbbu ñu si jàmm ñëpp am wér billaay te fekke ko tal ko bala 23 décembre Milano production dugg biir arène nationale fii. ban message ngay lancé ay machine wal laay indaale ay machine wal barrière rek lépp laay wal ba mu nooy nepp <laughs> yooyu comprendre sax damaa xam ne booy war a bëri fii yëpp waaw ñu taxaw la barrière yi nit ñee taxaw remplacer barrière taxaw def ay fil jàppante loxo ak loxo li ma nar a def fii incha allah si kattan suñu borom wax baaxul nag. yàlla suñu borom sotti lépp. kontaan trop di gërëm sama xarit yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk itali képp koo xamante ne nii sama xarit nga képp koo xamante ne yàgg nan képp koo xamante ne nii yaa ngi dégganteeg Bamba Milano bàyyiwuma kenn su ma demee ba Italie. dëkk bu naan kere naa maa ngi nuy samay xarit yu fa nekk yëpp ku si mel ni Fallou Niang Jibi moo di Dieye maa ngi leen di woo si le 23 décembre Cheikh Tidiane Aliou Badou maa ngi koy woo si combat bi Aliou Versace sama rakk maa ngi koy woo si combat bi Fallou Niang maa ngi koy woo si combat bi waaw su ma limee damay juum parce que ñoom dañoo nekk samay xarit yu baax yoo xamante ne dañoo yàgg te lu ma xewle dañ siy taxaw. moo tax ma leen di woo si combat yu baax a baax Iba Iba Ndiaye rak Pa Modou Ndiaye maa ngi koy woo si combat bi Pa Modou tamit maa ngi koy woo si combat bi su ma limee damay juum waaw Bouba Dramé maa ngi koy woo si combat bi Badou maa ngi koy woo si combat bi Aliou borom Gambia maa ngi lay woo si combat bi waaw di leen woo yéen ñëpp si combat bi ngir ñëw jàppale seen rak seen xarit Bamba Milano ñu gën koo xam si Milano production di sant nag suñu group suñu làmb maa ngi leen sant di leen gërëm ñoom ñëpp su ma limee damay juum ay Tapha Tine xam nga mbës baa bàyyi jëli tarkinda agogo miñaan sarr taala sila maa ngi koy siyaar bu baax a baax waaw baay Zal maa ngi koy siyaar Lat Diop maa ngi koy bëggee ñoom ñëpp di leen woo suma bis ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale seen rak xamante ni ñuy gan lan si làmb ji waaw di woo su ma limee damay jum ñoom Papa Gueye Milano ñoom soin bu GP waaw ñoom mbay baram baram baram baram waaw yaa ma gën a xam di di di waaw di woo gaa yëpp si combat bi ñoom góor gi ñoom Popo Alwali maa la leen di leen woo si combat bi xam nga Ibra Kane Pape Kane waaw ñoom tamit maa leen woo si combat bi ñoom samay xarit yu baax la dañoo yàgg surtout maa Ibra kan Pape Kane ñu baax a ngoog ñu am diine nangoo liggéey nekk responsable maa ngi leen woo si combat bi ñoom ñëpp ñu jàpp si. Cheikh Thiaw borom Dubaay borom Sine sama xarit moom am na fi drapeau sax moom xam naa ne danañ ko seeti waaw maam Diarra buso waaw maam Diarra Bousso borom Genova waaw moom moom xam naa ne moom tamit làmb ji. Euh, du ñàkk ñu tuddee ko si drapeau moom tamit ku baax la ñoo ngi koy woo si combat bu baax di sant sama soxna Awa Faatu di sant sama rakk Mati Mati ñang waaw maa ngi koy maa ngi koy sant bu baax a baax waaw su mel ni Awa Faatu ñoom sonn nañ si man ba ñëwee si kër gi ba léegi ñoo ngi may jàppale di sant ñëpp di gërëm ñëpp Père Mbaye Diallo xam nga su ma su ma su ma limee damay juum quoi Abdoulaye Ndiaye ku baax la moom tamit maa ngi koy woo si combat moom moom nit ku nit la quoi franchement parlé yow tamit sant naa gërëm naa la waaw parce que xam nga ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Kara Dollé yaakaar bu ma amoon su moom ba tax ma jox ko sama avance fu mu bëreeg njaga caam yàlla def ni dafa am malaat dañ ko koy nangul ñun ñun duñ duñ wax wax ju ñaaw duñ bañal kenn dara waaw mais comme que parewul pour bëre ñu koy ñaan lu mu gën a gaawee lañ ko joxoon si xaalis mu delloo ko parce que nit boo bëriwul da ngay delloo xaalis jàmbur waaw parce que ñu jox la avance depuis juillet ah làmb ji ñun la décembre la décembre nit mun na fee entraîner ba mel ni ñay des na temps bi des na le 23 décembre ñëwagul nga ni mënoo bëre waaw ñu koy ñaan nag su lu mu gën a gaawee ñu mu delloo ñu suñu xaalis bi nga xamante ne moom lañ ko joxoon waaw yow nag maa leen sant la gërëm du sant sa cameraman bi waaw yéen nit ñu baax ngeen xam nga da ngeen am patience bu la neexoon li yëpp du leen si fekk dama leen a waaw da ngeen maa contacté woo ma man leen ñëw leen man a ma problème boobu noonu na xaar le 23 décembre fii si arène nationale na ko ñëpp la le 23 décembre fii dana neex dana yëngu Bamba Milano ak staff Milano production maa ngi leen di nuyu ñoom moomoo laay ñoom xam nga waaw ñoom ñoom moomoo laay maa ngi leen di principate borom Italie maa ngi koy ni ku baax la moom tamit tett na ma si làmb ji lu bëri bëri ay ñoom Pape Malick ñoom Omar Ndiaye ñoom Fata maa ngi leen ziar ñoom ñëpp ëtt làmb ji ay ñoom Jamoo maa ngi leen ziar Aline Mbaye borom Brésil maa ngi lay ziar yow ni ku baax nga waaw maa ngi leen ziar ñoom ëttal làmb ji moomoo laay maa ngi koy ziar baax a baax maa ji mbaa ji mbër ni baax la waaw agogo samay xarit lan ñoom ñëpp bilaay walaay maa leen di bëggee xam nga dañuy sonn si man siga jonn bu tafaatin maa ngi koy siyaare bu wér a wér waaw di leen wax seen doom moo ngi si affaire yi ngeen ñëw jàppale ko si journée bi mu réussir ko si barke Serigne Touba Mbacke waaw kontaan naa trop. Bamba di mi di la bëggewaat bu baax a baax di la ziar di wax gars yi mi ngi noonu Bamba Milano moo fi woote le 23 décembre samedi lay tombeel nag fii si arène nationale mu boole li ñuy wax doomi mbër jàggil bëri yàgg yàgg des na la kan muy vite fait fils de Serigne Ndiaye. di la wax xale nga de waaye sa yoonu làmb ubbeekoogul te yaa ngi jël mag mi nga xam ne du ñeex ñebe benn xale muy kan muy dab daan dax bu jugee jam ñaar yëpp da koy topp ay itam boo jugee jaxaa yëpp da lay topp ndax gars yi rendez la fii nii si arène nationale di bëggee waat ñëpp di ziaraat ñëpp di bëggee xalif général kulu caméraman alaaji bas di la ziar bu baax a baax di jox sa wàcci waay tout droit lay doon ba biir wasaare at kan alaaji bas baara waaw lu ma fàtte woon uh, kii dugal mooy di di nuyu sama mbokk bawol bawol yi ak sama mbokk waalo waalo yi ak sama mbokk njàmbur njàmbur yi maa ngi leen woo si làmb ji waaw man damaa laal si bawol bawol si waalo waalo ak si njàmbur njàmbur maa ngi leen woo ñoom ñëpp si làmb ji waa làmbaay làmbaay làmbaay maa ngi leen woo si làmb ji man Bamba Milano borom Milano production di woo ñëpp Moustapha sama xarit Italie waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit daf may jàppale quoi bilaay walaay sooy bu GP GP bu efficace ku mën a liggéey xam lu muy def yàlla na ko yàlla defal jàmm soo bu Giuseppe borom Italie borom Milano maa ngi lay siyaar di la jaajëfal di la bëggee di jox rendez-vous Bamba Milano le 23 décembre fii sa arène nationale dana neex dana yëngu dab daan vite fait ñoom ñaar la ñëpp di xaar si côté mobilisation ku dàq mobiliser dana am surprise bu baax a baax bu mag a mag bu lay bett fii si biir arène national dab daan vite fait yéen ñaar ñoo ngi xaar si yéen loo xamante ne nii bëgg nañ ngeen mobiliser waaw defar bis bi taaral bis bi waaw combat spécial bi nag staff bi ñoo ngi siy waxtaan parce que combat yi ñu monté bëri na ñoo ngi siy waxtaan pour monté ko waaw bientôt daal li ngeen gis lépp quoi ok jërë ngeen jëf.